ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. El Elhadji Ousseynou dal leen jàmm ci xibaar yéeni yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo daal koy door ak vox populi yéeni kaay bi daal di xëyee mbirum Ousseynou Sy muy Sénégal bi nga xam ne nag moo nekkoon ca Italie da taal bis bi nga xam ne daal moo defoon xale yéeni bi duñu ñu xamal ne jamono ji fanaan na guddi gu njëkkam ca fi nga xam ne nag moo di kaso ba waaye nag ay jafe-jafe dëgg la fa jànkoonteel ndax Ousseynou bu mu eggee ñi nga xam ne daal ñoo nekkoon ca jàpp dafay xam ne ne moom Ousseynou mii daal nañu xool daal lépp loo xam ne nag moom Ousseynou moomee jëf ju ñaaw ji nga xam ne daal def na ko jamono ji metti na nga xam ne nag mooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Italie ba léegi rek ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu yoon sursoir bi ñu xamal ne jamono ji nag police bu Sénégal ñu ngay gën a yokk seen i doole rawatina ci lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu matériel jamono ji nag ña ngay daloo centre national de vidéo de surveillance waaye jamono ji nag am na ñoo xam ne ñu nga ci police googee danañ leen yóbbu ca biti réew ngir ñu daal di leen gën a tàggat ba ñu gën a xarañ ci liggéey bii nga xam ne daal ñoo ngi koy def ca jamono joojee Sud Quotidien di ñu xamal nag ay réewum Sénégal wër na ay kuréel yoo xam ne nag dañu ko fiy taxawal te it nag ay jafe-jafe lañ ciy jànkonteel yéen i kaay bi di samp laaj di xam ne ne kuréel yooyu daal kañ la ñuy taxawal ci réewum Sénégal kuréel goo xam ne daal dafay wéy yéen i kaay bi daal di jël misaal di ñu xamal ne nag bu dee Sénat ko Abdou Diouf taxawalee Abdoulaye Wade da koo tas waaw gaaw ndax bëri na ñoo xam ne daal ku yarati kuréel yooyu dañu ciy sédd ñii nga xam ne daal ñoom la àndaloon ci xeex bi yéenekaay bi di xamal ne tamit Macky Sall bëri na ay kuréel yoo xam ne fekkoon ne nag dañoo yore nguurug Sénégal jamono ji dana am ay kuréel yoo xam ne dinañu ko neenal ba léegi rek ci lépp loo xam ne nag jëm na ci tey nag nekk bis ba léegi rek tey nag nekk bis boo xam ne nag moom la ñu jagleel loo xam ne nag jëm na ci wàllu ndox xamale nag jamono ñoo jot ci ndox mu sell loolee di ko waral moo di ay programme yu am solo yoo xam ne nguurug Sénégal taxawal na ko ngir jëm ci wàllu gu ni mel nguurug Sénégal taxawal na ko ngir jëm ci fànn gu ni mel gannaaw loolee itam danañu wax ci lépp loo xam ne nag jëm na ci Sénégal ak Madagascar waaw match bi nga xam ne daal moom la ñu war amal yéen kay bi dañu xamale kay match ba kay danañu ko amal ci stade Lat Dior bu ci business daal di ñaaw ko amal tey ci ngoon tey ci ngoon bu 19 heures jotee danañu ñu xamal ne boobee ñu bi di ñu xamal nag réewum Sénégal bëri na ay jëf ñaawteef yoo xam ne nag da cey am rawati nag yenn ci ay hôtel sax yenn ci ay yoo xam ne jay jigéen dañu fay jaay yu am doole ñoo nekk seen ginnaaw yéene kaay bi ñu xam ne daal ay taax yoo xam ne nag da ko bëgg def ngir sànk ko ndaxte gannaaw ay at yu bëri yoo xam ne daal mi ngi ko doon liggéey ci réewum Sénégal waaye nag Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne bu tàmbalee teraanga du ñu la jàppale dañu lay xeex maître di sàkku ci client ñu daal di koy teggi loxo El Hadji Ousseynou Ndiaye